Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse ponk yu bëri la yéene kay xëye tey réew mi quotidien moom wàllu xëy bi bokk na ci li ko soxal ak marché de l'emploi ci Sénégal bi ñu jàpp ni kon am na lu ci wàññeeku rawatina ci at mi yéene kay groupe Rewmi Network bi di sukkandeko ci données yi nga xamante ne kon mu ngi tukkee ci direction de la prévention et des études économiques kuréel gi nga xamante ne def na xayma ci weeru août atum 2024 di xamle ni poste yi ñu joxe waxee ci secteur moderne bi daal wàññeeku na ci 5 virgule 1 pour cent ci at bi nga xamante ne kon mooy 2024 bi réew mi quotidien di wax tamit ci li nga xamante ne moom la ñu teg loxo Bougane Gueye Dany tey xam le ni kon waa sàmm sa kàddu di coalition bi mu bokk ŋàññi nañu lu nu mel ñu jàpp ni sax nguur gi ci boppam mooy jéem a déstabiliser coalition bi ci boppam moo tax ci laas quotidien yi tamit sàmm sa kaddu mu ngay fësal naqaram ci li nga xamante ne moom la ñu teg loxo kenn ci ñoom di Bougane Gueye mbirum Bougane Gueye tamit ci gis ni kon sàmm sa kàddu dañ ko jàppee ni dañ leen di jéem rek déstabiliser moo tax yàq nañu démb lu mel ni xamee nguur gi rawatina kii di Ousmane Sonko yéenekaay bi di ci fësal kàddug Barthélémy Diaz mi méngale kon li ñu teg loxo Bougane Gueye Dany ni ab prise d'otage ngir xañ coalition bi ki nga xamante ne daal waroon na leen indil lu bëri rawatina ci campagne législative bi ñu dëgmal ci Walf Quotidien moom sàmm sa kàddu yamul rek ci ŋàññi lu ñu ko teg loxo waaye anam yu ñu dencee Bougane Gueye Dany ca kaso bu Tambacounda les échos Sénégal ci anam yooyee moo gis ni njiital de médias moom ci pukus bi ñu ko denc moom ak lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoom ñoo fa nekk ci anam yu doy waar lool te métti keneen kuy dund lu métti ci xët bu njëkk l'observateur muy Lat Diop mi nga xamante ne kon ba léegi pool judiciaire financier bàyyeegu ko yéenekaay bi di xam ne ni ki fi jiite woon LONASE boo moytul ay mesures conservatoires yu métti la ñu war a ngàll ci ndoddam mën na sax yegg ba bloqué li nga xamante ne moom mooy ay compte nangu ay résidence principale muy fi nga xamante ne jëwriñ jëwoon foofu la dëkk jeneen jëwriñ jëwoon gi ñu dénkoon wàllub njënd ak njaay Alioune Sarr moom tamit ma ngay laalee ak wàllub yoon bu ñu sukkandekoo ci libération ñu ngi koy toppee wàllub mbuxum yéene kaa bi di ñu xamal ni kon démb bëccëg bu métti la daal di dund moom meerub Notto Diobass bi diggante section de recherche bu Thiès ak tribunal diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko débat public mën naa am Vox Populi du xamal ni moom tête jàmm ak njëriñ nangu na défi bi nga xamante ne lancé premier ministre ci boppam daal na koy lancé ci ko xamle mooy mandataire am bi di Zahra Iyane Thiam mi jàpp ni amul benn condition bi nga xamante ne Amadou Ba dina ko teg ngir amal boobule débat public lii moo tax lu quotidien ne amadu Ba ci boppam nangu na défi bi nga xamante ne Ousmane Sonko daal dina koy lancé moom Amadou Ba sàkku na ci Sonko mu taamu bis bi ak fan la nu koy defee def moom du fi amee ndax l'observateur mu ngi ñuy xamal ni boobule débat ñuy laam-laamee CNRA ci boppam daal dina na nag raison yi xamante ne kuréel gi ci boppam fësal na ko le témoin fësal xeex bi war a am diggante Pastef ak taxawu ci élection législative yi rawatina diwaanub ndakaaru mi nga xamante ne war naa ut xalifa bu bees joriñ ju yees ñu ñu dénk wàllub mbay mi sekk waxtaan wu yaa ak le soleil yéene kaay bu ba Diagne di xam le ni kon luy mbëbatu nguur gi mooy samp ay coopérative agricole ci lu ëpp juróomi téeméeri commune ci Sénégal joriñ ji di xam le ni kon Sénégal ci boppam dana dépenser lu ëpp junni milliards ci suñu koppar produits et produits alimentaires moom Diagne di xam na ne nag ren ji ñoo ngay xaar production ci wàllub gerte bi bi nga xamante ne record lay doon te du yàgg dara dina indi ab arrêté bi nga xamante ne dina tere lu jëm ci exportation gerte gi muy arachide brut ci Sénégal wàllub gerte gi tamit soxal lool Sud Quotidien mi ci xëy tey di xam ne ni secteur bi ci boppam si waajal suqaliyaat boppam la nekk li ko waral mooy Sonacos bu kaw Kaolack nekkoon ci ay jafe kilifa bëgg ko sukkali secteur bi nga xamante ne suux na ba noppi yéene kaay groupe Sud Communication bi dañu xamal ni li ko waral bokk na ci opérateur privé stockeur yi nga xamante ne dañoo amee jafe-jafe ci wàllu financement concurrence bi nga xamante ne na lool ak exportateur étranger yi yeneen i jafe-jafe yi tamit yi nga xamante ne tax na ba filière mbayum gerte bi daal di tàgga témbe domaine u mbay bi nekk ca Sangalkam am na ci ab scandale enquête def enquête am ba xam ne ni ab crime financier la bi nga xamante ne soxal na ay suuf yi nga xamante ne ISRA moo lu toll ci juróomi téeméer ak fukk moom la Séré yéene kaa bi di ñu xam ni kon ay agent yu impôt et domaine ay magistrat ay kilifa diine ba ci sax ay kilifa lébu ñoom bokk nañu ci ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu séddale terrain yi jamono ji nag dossier bi mu ngi ci loxol kilifay nguur yu yees yi ñu war ci kon indi ay leerlu Rewmi indi indil ñu lu xew démb ci Ligue des champions yéene bi di ñu xamal ni Real de Madrid moom waneeti na boppam ni ki démb remontada bu amul fenn la def ci kanamu ñii di waa Dortmund juróomi bal